li nga xamante ni moom la ñuy wax tey tey tey mooy dañu bëgg la président Macky Sall tey tey tey mu jël date woote sommet extraordinaire bu CEDEAO pour ñu waxtaan ci mbiru Gambie ndaxte mbiru Gambie nag dafa ëpp. Yaya Jammeh dañ koy yàgg seetaan muy def lu ko neex en 2012 la jër sunu sœur Tabara Samb rey ko état Sénégal mel ni Yaya xar xar la rey terewul ñu kon ne di def ak moom ni ñu doon def ak moom. tey mu jël ñeenti doomu réew mi jël dëj ci kaso bi lu ñu ko def dara Yaya daf ñu yàgg a provoqué lii nag dañ ci war a arrêté Abdou Diouf da doon arrière devant Yaya Abdoulaye Wade da doon arrière devant Yaya que Macky Sall mu am courage affronter Yaya Jammeh e qu'on règle ce problème de manière définitive parce que sécurité Macky sécurité sécurité sécurité Gambie dafa bokk ci sécurité Sénégal ndax Gambie mi ngi ci biir Sénégal lu laal Sénégal daf ñuy laal lu laal Gambie daf ñuy laal lu laal Sénégal laal Gambie kon ñun waruñu toog yenn situation yi di am Gambie wala benn yenn genre xeetu nit gi nekk biir Gambie di def lu ko neex te dara du ko ci fekk loolu dafa war a arrêté. non li war a def mooy tey jii d' abord wax naa que il doit appeler convoquer le sommet un sommet extraordinaire CEDEAO pour ñu waxtaan ci mbir mi mais ñu jël ay sanctions contre Yaya Jammeh ak bépp bit boo xam te ne dafa ànd ak moom dèjà ñun Yaya Jammeh munu génn Gambie te jaarul Sénégal. tour de contrôle aéroport bi mooy mooy mooy mooy mooy contrôler les les avions buy génn dëkkam mais il suffit ñun ñu ñu suñu espace aérien mais Yaya Jammeh dootul voyager mais il faut que ñu jàkkaarloo ak moom mu jeex ñu régler ko pour toutes quoi.